ñu jàll ci beneen xaw ma tuuti ci waxtaan moo di xaaj yi jullit yi ci koor jullit yi ñaata xaaj lañ ci war gi leen koor wax ñooñu ay xaaj lañ ba ci jiitu mooy soo xam ne dafa war ci moom mu daal di woor soo xam ne yàlla dama mu al ada dañ koy wax kooku mooy jullit boo xam ne mu kallaf la boo xam ne bu mën a woor la bu dee ci wàllu sharia ak bu dee ci wàllu yëpp maanaam ni ñu koy gisee moom jën bopp kooku li ko war mooy da ko war a woor ci saa ñaareel la mooy koo xam ne yalzamuhul xabaar fay moo ko war kooku mooy koo xam ne dafa am aj ak lot loo xam ne fekk sii la loo xam ne lot bi daf ko yëg ci yaramam wala boo xoolee yoo xam ne lot la la ko waral mooy tawat dafa wopp ba mënta ko wax wala ñu jox soo ne lii war naa mën a indi ak lot ci wàllu yëpp ba tey muy lu demee ne tukki ci nag buñ ko waxee dañ koy tënk ci tukki boo xam ne ki koy def jublu mu ci def ay pexe ngir bañ a woor léegi ba weer wi ñëw mu ne naa dem tukki ndax ma bañ a woor su ko defee kooku dox day araam ci moom te itam woor day war ci moom tey tukki nag su fekkee ne yoon daf ko jox mu tukki maanaam jublu mu ci pexe pour bañ a woor kooku sañ naa bopp moo xam tabax ba moo xam tukki ba yàgg na wala yàggut wala day tukki bu xam ne dafa jékki-jékki rek am day war a weesu wala dafa doon tukki boo xam ne sax day continuer comme ñi nga xam ne ay jëbroor la ñuy dawal ay oto di dawal ci wàllu transport nga xam ne dañuy tukki ay diggante dëkk yu sori wala ñi nga xam ne sax dañuy dawal ay avion ñooñu ñëpp sharia may na dañuy dog seen koor saa bu ñu amee jamono yoo xam ne nekkuñu ci tukki nga xam seen congé la wala seenum noppalu wala lu dëkk bu ñu tukkiwul bu nekk ñu commencé fay seen koor waaye bu nekkee ci biir tukki day sañ nañoo dog ndax suñu borom tabaraka wa taala moo wax ne man kaana wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxar képp koo xam ne da ngaa woo wala nga nekk ci tukki nee na kooku na nga lim yeneen fan fayee ko fan yi nga xam ne moo la waroon yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra yàlla daf leen bëggal lu yomb waaye bëggalu leen lu jafe kon suñu borom tabaraka wa taala diine ji mi ngi ko teg ci ak yombal waaye tegu ko ci kaw ak jafeel Anas ibn Malik radiallahu taala anhu mi ngi wax ne dañ daan tukki ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñenn ñi woor ñi ci def ñàkk a woor ci woor du ayibal ci wóoru ci wóoru ci tam du ayibal ci woor kenn du wax sa morom ne ko yow sawaay li nga nekk du dara da ngaa waroon a woor wala kii ne ko waroo woon a woor ci boobu mu tabax naa wala boobu nga xam ne dafa lot lott boo xam ne cara yi la nekkul xeet bi wala waaye cara yi la muy koo xam ne dafa day jigéen bi gis baax wala mu gis gësin c'est-à-dire dafa am doom ba àggal am lu génn ci moom te jeexagul kon kooku sañu ta woor ne te weesuwul weesuwul dig boobu kon ñooñu ñooñu ñi nga xam ne li leen war mooy fay ñetteelu kuréel bi ci doomu aadama yi yi nga xam ne koor daf leen war mooy man yalzamuhul itaan faqat koo xam ne moom koor waru ko waaye lele moo ko war loolu mooy ku mage ci wàllu at wala koo xam ne dafa wére di wére di goo xam ne jàpp ñu ne buy wér la feebar boo xam ne mënu ko woor mënu ko wooraale ba noppi kenn luñ ne feebar bu wér la xëy na am na feebar yoo xam ne bu xasee dal doomu aadama bi mën naa yàgg lool su ko defee bu boobaa moom li ko wax mooy lele lele nag su ko neexee mën naa koo séddale nit ki ni mu ko war a jox muy li ñu tudde mudd lay joxe mudd nag bu ñu ko waxee li muy peese muutu boo xam ne ci wàllu sariya la mooy bu tolloo loxo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy bu digg doom boo xam ne réew ba ëpp tuutiwul ba ñu di ko natt ci wàllu peese ñu wax ne mooy cinq cent dix grammes cinq cent dix grammes daal bu fekkee ne day lele moo koy war mu jox ko benn miskin bu nekk moo xam ne cet la wala ceeb wala lu mu ko joxe xañ na ko séddale juróom benn fukki miskin yi mu koy wax wala li mu fan yi nga xam ne moom la wóor fanweeri fan yi wala bu fekkee war na ci ay fan sax waaye motalut masalan tàmbali na di woor ba mu yàgg mu lor kon la ko def ci ay fan loolu la war a leele suy leele loolu mën naa seet nit ki ñu toll ni fan yooyu kenn ku nekk mu jox la mudd séddale leen su ko neexee itam mu woor nit ki ñu toll ne leen def ci ay fan di toggal leen aw ñam ñoom yëpp ñu bokk lekk moo tax Anas ibn Malik radiallahu taala anhu daf noonu la daan leele gannaaw bi nga xam ne dem na ba doon mag lool leele na lu mat am at wala ñaari at sax yoo xam ne daf daan woo ay miskin woo leen ñëw jox leen mburu jox leen ndawal def ko ca ñu bokk toog lekk mu bañ a woor loolu Buxaari tudd na ko ci sax yi ñeenteelu kuréel doomu aadama yi mooy mën naa see aale gi mooy koo xam ne dara waru ko du woor du lene loolu mooy koo xam ne nekkul mu kallaf gone la wala mag la sax waaye àndul ak xelam masalan dafa dafa wéra ji ci wàllu xel ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne rufi al qalamu an salaata ñett ngi ñoo xam ne dara waratu leen kuy nelaw li feeg yeewuwut kooku dara waru ko koo xam ne dafa doon gone li feeg nekkagul mu kallaf ma dooragul kooku dara waru ko ki nga xam ne it dafa nekk ci ak ndox àndutagum xelam li feeg am xelam den si wut kooku itam dara waru ko kon yooyu dañuy war a tax mu doon wax rafet na nag ci ki nga xam ne mooy kilifa ndaw li xale bu ndaw bi mu tàggat ko ci koor mu tàggat ko ci koor ngir mu mën koo miin ndaxte loolu ak roy la di as asu faale ñu mag ñu baax ñu yiwe ña daanañ jël seen i gone di leen woorloo di leen yóbbu ci jàkka ji di leen ci yàndal suñ demee bay jooy sax ñu indi ay fowukaay jox leen ko ci jàkka ji ngir ñu foyee ko ngir di leen yar ci ci koor kon loolu lu rafet la waaye rek doonut lu wax gone gi kañ la ñuy xam ne ne nekkatul gone léegi li war nit ñi war na ko kooku bu dee ci bu góor ci ñett yëf la bi ci jiitu mooy xurujul mani ndoxum góor su génnee ci moom ñu koy tudde mani moo xam dafa gént wala géntul kon kooku day daal di war ci moom mu woor suñu borom tabaraka wa taala moo wax ne wa ida balaga al atfal minkum alxulum falyastazinu kama stazana alladina min qablihim wa ida balaga al atfal minkum alxulum alxulum la wax bu fekkee ne seen xale yi dem nañ nag ba toll ci gént su boobaa nag diisoo maanaam li war mag ñu war na leen su ñu dugg ci néeg sax dañoo war a diisoo comme ni nga xam ne noonu la mag di war a diisoo wala xawli sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne cangaayul ajjuma war na képp koo xam ne ku gént la kon yooyu daf lay war ne gént ak biig la boo xam ne ku ci xas àgg li war nit ñi war na la xadis boobu mu taxaw maa lay ñaareel bi ci mandarga yi ñu koy xamee mooy zuhuru shaaril aana kawar gi nga xam ne mooy sax ci naq nekk kaaw bu ñagas kooku day daal di doon mandarga moo xam ne day wane ne nit ki mu kallaf la léegi suñu wax afiya al xurafi bokk ci banu Qurayza radiallahu anhu nee na bisu Qurayza bi nga xam ne dañ doon xeex ak jullit yi ñoom yahudi ci Madina dañ jàpp ci ñoom ay fripon moom xëy na calawoon mu ne nan lañ doon def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen a indi woon ñu di leen seet ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo jógal di xeex ak jullit yi bi ñu leen jàppee ba àggal ñuy Mawla ibn Omar mu ne bi ma ñëwee ci Omar ibn Abdul Aziz te fekk boobu mooy xalifa jullit yi ci kaw ko ma nettali ko xadiisu Abdullah ibn Omar boobu nee na mu ne ma loolu mooy di taytal bi dox diggante ndaw ak mag maanaam fukki at ak juróom daal di bind yónnee ko ci mboolem région jullit yi yëgal leen ne képp ku am fukki at ak juróom na ngeen ko jox xam-xam ci baytul maal su ko defee ñu di la jox ñu ne xam nga ne ci jamono gouvernement Omar ibn Abdul Aziz demoon na ba képp ku mat mu kàlla ku nekk rek am nga salaire dañ lay fay moo xam yaa ngi liggéey moo xam liggéey kon kooku nekkoon na loo xam ne li nga xam ne mag ak ndaw la su dee jigéen nag yooyu yi ñu tudd yëpp ñett yooyu dana ci jote moom jàpp mu kàlloon ci yi muy jote jàpp mu kàlloon ci la bokk mu dolli ca meneen mbir nag mu di gis gis xeeram juróomeelu kuréelu doomu aadama yi ci koor mooy boo xam ne am na ak juróo bu dox bu ci am ci borom xam-xam yi kon ñenn ñi fay da leen a war joxe ci saa si da leen war ñu ci def fay war leen ñenn ñi lay war leen ñu ci def dara waru leen juróomeel bi mooy ñoo xam ne dañoo juuloo seen biir mooy ki nga xam ne dafa ëmb wala muy nàmpal su fekkee dafa ragal lor ci doomam ak su fekkee su fekkee dafa ragal lor ci doomam loolu nag bokk la su fekkee dafa ragal lor ci boppam moom ci wér yaramam borom xam-xam yi amuñu jiwér ci ne lor ji su fekkee dafa ko ragal ci jëmmi boppam kooku day doom waaye dana fay su fekkee nag doom ji la ragal ne mën naa loru moom miy nàmpal wala moom mi ëmb doom ji ci biir wala ji ci bitti mën na cee loru su boobaa kooku moom nee nañ day dog fay waaye Abdullah ibnu Omar ak Abdullah ibnu Abbas nee na day dog joxe xifaam maanaam day lele gis bu mu toog bu nekk mu jox ko ab miskin lu tolloog mut cinq cent dix grammes lay joxe ibnu Qudama ci téeréem bu mag bu ñu wax al-Mughni mu ne Abdullah ibnu Omar ak Abdullah ibnu Abbas loolu ñu wax amul ak juróom ci saxaaba yi saxaaba yëpp noonu lañ ko gis moo di ne kooku way tax waaye nag borom xam-xam yi dañoo gis ne li gën a wóor maanaam ci wàllu ñeentu li ñu wax al ixtiyaar mooy mooy mu fay waaye nag li gën a dëgër mooy ñàkk ya fay su loolu jàllee ñu ñëw ci beneen tomb boo xam ne mooy ay yi yàq koor yi yàq koor ba ci jiitu mooy sëy kooku mooy bi ci gën a rëy itam ndax mooy ci gën a rëy itam nag bàkkaar képp koo xam ne sëy na ak jigéenam ci bëccëgu weeru koor moo xam day woor farata wala day woor naafila kooku kooram yàqu na su fekkee bëccëgu weeru koor la nag ñeenti mbir war na ko ñeenti mbir war na ko moom ni sëy jigéenam ci bëccëgu weeru koor li ci jiitu mooy na jàpp bis bi bu mu continuer di lekk ka naan ci bis bu mu gën a jàpp boobu parce que dogul dog boo xam ne dogu gi yoon la ba bañ a toog di lekk ak a naan ak a def li daganoon ci ñoom kon day continuer jàpp ba bis bi jeex ñaareel bi mooy bis boobu dana ko fay ñetteel bi mooy na tuub dellu ci boromam tabaraka wa taala ndax te toog doon am bàkkaar boo xam ne bu rëy la ci lislaam ñeenteel bi moo di kafaara war na ko kafaara nag mooy su fekkee ci jamono yu jaam amee la na goreel ab jaam fi ne nag lu gën a bari da ngay dégg nit ñi lu ñu wax wax ne jaam rek amatul léegi waaye fekk loolu ñëpp nag gàccale jullit yi ndax jihaad bi sabilillahi moo amatul jullit yi dañ jihaatee rek faaw ñu jàpp ay kay doon ci yéefee yi te suñ ko jàppee njaam am kon du jaam amatul kon jihaad fi sabilillahi moom la jullit yi daw kon goreel jaam moo ci war a jiitu su fekkee ne jiitul jaam bu mu goree wala amul lu mu ko goreele kooku na leere na woor ñaari weer yoo xam ne yu toog taloo la yoo xam ne du tàqale seen diggante lu dul dafa am ngànt loo xam ne ngànt li moo ko tàqale su fekkee amul loolu mu leele juróom benn fukki miskin yoo xam ne kenn ku nekk da lay jox mut bis bu set maanaam mu jox la kenn ku nekk mut kon su fekkee benn miskin la mu continue lu mat ñaari weer su ne mu jox ko mut bis bu set su fekkee ne amul lenn ci yooyu yëpp nag kon bu boobaa kafaara bi wàcc na ko dara war a ko bu boobaa kooku mooy li jiit ci yàq ko ñaareel bi mooy nit ki fexe ba génne ba tey man ni yow ci lu dul sëy moo xam nag moyen bu mu mën a doon bu mu mën a doon su fexee ba am bànnee xam ba génne ndoxum góoram daal kon kooku kooram moom daal na yàq fekk moo ko defal bopp loolu moo tax sun borom tabaraka wa taala ci xadiisu sutsi bi mu wax ne duñu tagi jullit bi mu ne yamahu taamahu wa sarabahu wa sahwatahu min ajli wa sahwatahu min ajli kooku mooy dalil buy wane ne dalil buy wane ne su fekkee fexe na ba génne ndoxam moomu ci lu dul sëy itam kooram day yàqu li tax nag ma gën a fàttali ci dalil boobu moo di ne lenn ci borom xam-xam yi ku mel ne al imam ibn Hazm dafa gis ne ay xool ak ay góon ak ay nit ci baytan ba génne man yoom bu mën a doon loolu yàqut koor loolu dafa gis ne loolu li feeg du sëy moo ko waral waaye li gën a wér mooy day yàqu koor ngir xadi koobu ma leen wax ñetteel ba moo di lekk ak naan lu mu ci def lu ne kooram yàqu na lekk ak naan nag buñ ko waxee mooy mu fexe ba ak jale ci biir ak mbaxam loo xam ne aw ñam la wala ndox mu ñuy naan la wala mu jaarale ko ci bakkanam moo xam ci bakkan la jaar wala ci gëniñ borom bi moo ne wa kulu washrabu xatta yatabayana lakum alxaytu al abyad min alxaytu al aswad min al fajr summa atimmu siyama ila al layl lekk leen ko naan ba keroog fajar bi jot kon bu fajar jotee loolu da lay wan ne la daganoon foofu la yam kon dagana tuub muy lekk dagana tuub muy naan jaarale gi ci bakkan nag moo jaarale ci gëniñ rek ñoo yam ndax xadisu laqit ibnu sabia dafa wax ne wa baaleel ci listinsaaq illa an takuna saaiman sañ nga booy jàpp ngay faraxndiku bu baax lu dul ne da ngaa woor kon foofu dalay woor wax ne boo wooree boo faraxndiku woon ba ndox ma jàll ci sa biir ci sa biir kon bu boobaa koor ga day yàqu ñetteel bi loo xam ne nekkul lekk nekkul naan waaye nag maanaam lekk ak naan la yore loolu mooy lu demee ne xeeti fikir yi nga xam ne danañ ko not doomu aadama te fekk day watti ak lekkam akuk naanam moo xam da ngeen buñ samp mu tiim ko la moo xam da ngeen ñoom figir ko xitaab bi waaye day wuutu lekk ak naan kon loolu ci boppam day yàq koor su fekkee ne figir beneen bu mu mën a doon bu mu mën a doon boo xam ne du wuutu lekk ak naan boobu figir du yàq koor juróomeel ba mooy tay tay lu wàccu c'est-à-dire loolu su loolu boo wàccu sa koor yàq na yàqu na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man daraahu lqayru falaysa alayhi saba boo xam ne wàccu da koo nopp dafa jekk ba mu yàgg rek xelam kay mu daal di wàccu boobu dara wëru dañ continue rek koor waaye nag bu dee mooy tay taylu di dugal baaraam wala muy fexe bay fóol lu naqari wala mu fexe ba wàccul boppam su boobaa kooram yàqu na juróom benneel bi mooy génnu génnu deret ci jigéen deret yi bërët wala deret yi meret lu mu ci mën a doon kooku kooram day yàqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu Buxaari mi ngi wax ne alaysa ida xaabat lam tusalli walam taqum moom jigéen bi ba muy wax ne diineen ci boppam dafa xaw a manqué muy wane ne ndaxte bu fekkee ne dafa woor bu fekkee ne dafa woor dafa mbërëg du woor di génn yi tax yooyu nag yi jiitu yi ma tudd dafa am lu koy réglementé loo xam ne li fee amul loolu du yàq koor ba mu des nag ñaar dong muy mbëri mi ak meret mi yooyu moom amul benn ko règlement fu mu génn rek mu koor ko yàqul mais yi ci des nag dafa am lu ñu am mu dooraat ay dawaat la wa qaadatul awal mooy an yakuna aaliman mooy mu xam loolu su fekkee daf koo réere kooku du yàq kooram ndax borom bi tabaraka wa taala ci alquran rabbana la tuaxidna in nasina aw axtana wax na ci xadiisu muslim ne borom bi tabaraka wa taala daf ne qad faaltu maanaam ñaan boobu suñu borom nangu na ko maanaam li nga fàtte yàlla du la ko jàppe waxaat wa laysa alaykum junaaxun fi ma axtatum bihi walakin ma taamadat qulubukum loo xam ne ci da ngeen cee juum loolu yàlla du leen ko jàppe waaye loo xam ne yaa ko tey tey loolu sa bopp loolu la suñu borom tabaraka wa taala di jàppe Ali ibn Xaatim nee na aaya boobu bi mu wàccee xataa yatabayyana lakum alxaytu al abyad min alxaytu al aswad nee na damaa jël sama ñaari meeteel yi ñuy def ay kaala ci bopp danaa yi ko jëfandiko moom la ñu tuddee ay xaal nee na aaya bi li mu lay wan ci bëccëg mooy li mu lay wan moo di su fekk na ngeen di lekk ak a naan loolu dañoo tuy aaya bi noonu rek ci kaw li muy teg na ngeen di lekk ak a naan ba kero wëñ bi ñëw ji ak bu weex yi ngeen di ko xàmmee nee na bi ma gisee loolu ma dem jël sama ñaari wëñ yooyu dugg sama nekk faraal toog di lekk kanaan leer mi rek ma xool nee na di xool mu ne tuuti ma xoolaat du ma leen mën a xam ne nee na ba mu yàgg rek ma xool xam ne bu ñuul gaa yi bu weex gaa yi ma daal di bàyyi bañ a lekk waaye nee na bi ma xëyee ma xëy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xëy na xelam dalul mu nekk li ko lim def ne ko damaa teg sama ñaari éxaal ci sama ron ngeganaay di ko xool ba mu leer ma ne xam ne naa leen ma door a jàpp nee na yonente bi ne ko ah kon sa ngeganaay yaatu na sa ngeganaay bi kon yaatu na ndaxte su fekkee ne bu dee bëgg xaj nañ juróom sa ngeganaay kon sa ngeganaay yaatu na loolu li jublu lu ay wëy wante li jublu mooy sawaadul leeli wa bayaadul nahaar maanaam ñu laay guddi liñ ci jublu ak weexaayu weexaayu bëcc kooku xadis la boo xam ne mu def on ale kon li ñu jëlee boobu mooy aad yi li wér sa wér mooy bu tëj sa biirum néeg bala ngaa xam ne wëñ bu weex bu ñuul moom jant bi day fenk kon lekk na ba asamaan def rek daa koy léegi kon wante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digalu ko mu fay ndax xamul xamul woon daa tëdd kon ki nga xam ne dafa xamut dafa réere kooku kenn du ko jàppe loolu day yàq koor du yàq koor ñaareel bi base ci ñaareel bi mooy an yakuna muxtaaran mooy loolu nga xam ne moo koy tànnal boppam kon dog kenn obligé wul ko ndaxte borom tabaraka wa taala kéefar sax buñ ci forcé ba mu tudd kéefar ci làmmiñam comme que dañ ko cee obligé kooku yàlla du ko ko jàppe illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman la yàlla wax kon kooku gis ko jàppe kon nag su fekkee kéefër moo demee noonu kon leneen lu ñu def kéefër yëpp kon borom tabaraka wa taala du ko jàppe kenn moo tax ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne inna allaha tajawaza an ummati alxataa wa nisyan wa ma sukrihu alayhi yàlla jéggal la sama xeet njuumte ak loo xam ne dañ koo fàtte ak loo xam ne dañ leen ci xoote ñetteel ba mooy mu fàttaliku ko bañ koo fàtte su fekkee daf koo fàtte ba lekk wala mu naan wala mu def lu yàq koor ba tey itam day continuer rek ak kooram waaye kooram du yàqu ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ku fàtte lekk wala mu naan ci koor na àggale kooram ndax suñu borom tabaraka wa taala moo ko moo ko leel moo ko jox itam mu naan kon juubu loolu ñu wax juubu ko def ay waru la bokk na ci teggi ni koor ma ndax dana gën ne ko waaw bokk na ci tegee ni koor kon gannaaw buñ jógee ci bunt boobu mooy kii woor dafa war a wattandiku lépp loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala daf koo tere ci ay wax wala ci ay jëf xam ngeen ne loolu nit ñi ci wóoru ci suñu borom daf koo tere waaye di gën a tàggale ko ci jamonoy koor ndax buñ fàtte ne waxtu koor jamonoy tàggatu la jamonoy tàggatu ci yi suñu borom tere woon yëpp ñu bëgg koo bàyyi ngir bëgg bu koor gi jàllee nga mel noonu continué nekk ab jullit bu mucc nekk ab jullit boo xam ne ba ragal yàlla ngay doon loolu moo xam kon war naa wattandiku fen muy wax loo xam ne amul war naa wattandiku jiw mooy tudd sa mbokkum jullit ci loo xam ne ci bëgg nga ko bëgg a tudd moo xam la ngay wax am na nag wala amul su fekkee am na loolu moom mooy tudd jiw maanaam nee nga diw sàngam nangam ak nangam a ngi ci moom nangam ak nangam a mel te fekk wax nga dëgg kon loolu mooy jiw su amul nag kon kooku danga koo duural da ngaa wax lu amul am naa wattandiku rambaaj muy doxal ay wax jële ko ci ay doomu aadama yóbbu ko ci yeneen ngir jaxas seen diggante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yadxulu jannata lam naam ki nga xam ne day rambaaj nee na kooku du dugg àjjana war naa wax ni ko li ñuy tuddee bi muy nax tam lenn mbokk jullit mu mën a doon ci wàllu jëflante ci wàllu alal moo xam anam goo lekkee alalam mu mën a doon ci loolu yoon sa mbokk jullit ak keneen ku dul jullit sax ci li gën a wér moo xam da ngeen di commerce wala da ngeen di liggéey wala da ngeen di liggéey bokk su ngeen di liggéey wala da ngeen di fay wala lu ngeen di mën a def lu mën a doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man rattala falaysa minna képp koo xam ne si moom jullit yi gar nga nu wala nax nga nu wala wóor nga nu nee na kooku bokkoo ci ñun am na benn riwaaya boo xam ne pour ñu xam ne yëmat jullit ñi rek daf ne man ratta falaysa minna koo xam ne dafa war moom mu ngi ci muslim koo xam ne da ngaa wóor pour mën a doon kooku bokkoo ci noonu war naa waxtaan itam tamit lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu musique ak perspective lu doon yooyu ak xeeti caaxaan yooyu waaye bi suñu borom subhanahu wa taala di wax ne wa min annaasi man yashtari lahu alxadis li yudilla an sabilillahi bi gayri ilmin wa yattaxidaha huduwan ulaika lahum adabun muhin yàlla dafa wax foofu ñi nga xam ne ñooy jël lii tuddi lahu alxadis muy caaxaani ay wax Abdullah ibn Mas'ud biñ ko laajee aaya boobu daf ne jiñ naa ci yàlla mi nga xam ne amul benn yàlla bu ñuy jaamu tam wér ku dul moom nen aaya bi li ko tax a wàcc mooy way dëgg ak way moo ko tax a wàcc loolu tax na jóge ci Abdullah ibn Abbas jóge ci Abdullah ibn Omar jóge ci Jabir ibn Abdullah ñu jële ko itam ci Ikrima ak Saïd ibn Jubair ak Mujahid ñoom ñëpp nangu ne aaya bi ci way ak jëfandikoo ay jumtuwaayu nit moo ko tax a wàcc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg ne la yakunanna min ummati aqwamun yastaxilluuna alxira walxarir walxamra walmaazif rawahu albuxaari mu ne xeetam bi dana dem ba jëmmi jamono ñuy ñuy tàkkoo dajanlu ñuy tàkkoo dajanlu pëy ak li ñu tudde sooy ak li ñu tudde sàngara ak li ñu tudde xeetu jumtuwaay yi ñu kon loolu liñ tudd ci pëy mooy njaaloo liñ tudd itam ci danañ ko tàkkoo dajanlu mooy jëf ko jëf di ko jëfandikoo jëfin loo xam ne day mel ne lu dagan ci seen biir mel ne amatul benn problème li ko koy def ku nekk dañuy jàpp ne li ngay def lu dagan la boo dee ndax lii daganul ñu commencé lay doon ci bopp nit ñi kooku mooy yastaxilluunaha moo tax Cheikh Ibnu Utaymin mu ne loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne dana am ci xeetam bi nee na loolu feeñ na ci suñu jamono jii ndax da ngay gis ay nit ñoo xam ne ñooy jëfandikoo xeeti nit yooyu di ko diirlu mu mel ne dafa doon lu dagal mu ne loolu bokk na ci li noonu l'islam jekkoo ñi nga xam ne ñooy xeetu l'islam fexe ba dox seen diggante ak tudd yàlla dox seen diggante ak jàng alquran ñu bari ñooñu sax nee na ni ñuy dégloo musique ni ñu koy teewloo ak ni ñu koy ànd ak mbégte duñ ko def suñuy déglu alquran wala suñuy déglu xadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala suñuy déglu waxi borom xam-xam yi nga xam ne dafa làmboo ak ay sharia ak li nga xam ne mooy mbóot yi nekk ci biir diine l'islam dafay bokk na ci teggin yi nga xam ne ñuy rafetlu la yooyu nga yëpp moom ay teggin yu waar la waaye nag ñuy rafetlu bokk na ci bi li ñu tuddee ak saxóor muy xëdd teggin bu rafet la mooy jekki ba ca mujj guddi ga nga jóg lekk dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne tasaxaru fa inna fi saxuri baraka na ngeen di xëdd ndax xëdd lu am barke kon kuy woor war ngaa jéem a góorgóorlu ci loolu amr ibn al as ci xadisam bu jëlee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na faslu ma bayna qiyamina wa qiyami ahli alkitab aklatu sahar li wuute sunu koor ak koor ñeneen ñu dul ñun ñooy gëm ay téere mooy lekk ñu jël nee na jullit yi moom dañuy waxtaan bu baax a baax a baax woor ba noppi xëdd ñu dana ci teggee yu rafetlu yooyu mooy di teel a toog waaye nag gannaaw bu jant bi soor laa yazaalu naasu bi xëy ma ajalul fitr kooku xadiisu Sahl ibn Saad la moo di nit ñi ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci aw yiw di feeg ñu ngi gaaw a dog waaye gannaaw boo xam ne jant bi soor bokk na ci teggee yu rafet yooyu buy dog mu dogee tàndar ma ji tooy su ko amee su ko amul mu dogee tàndar ma ji wow su ko amul mu dogal lu jàpp ni lu mu mën a doon ci lu ñuy lekk wala lu ñuy naan su fekkee amut lu mu doge nag waxtu doog jot na te amut lenn lenn lu mu doge muy yéene soog ci xolam yéene ko ci xolam mbokk na ci itam ci teggin yoo xam ne yooyu mooy mu ñaan mu ñaan jamono yoo xam ne dogal ngi jot nit bi war naa toog ci bërëb di ñaan ci yiw àdduna ak àllaaxira ndax jëlee nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kay woor ci waxtu lu muy jot ak ñaanam jiitu ko delloo lu mu ñaan rek suñu borom tabaraka wa taala dara ko ko nangu ci aw ñun topp nañ jamono yoo xam ne mi ngi dog la nag bu dogee ba noppi mu jàng itam ñaan yi nga xam ne moom moo tax mu di zahaba rama wa tallat al uruq wa sabata al ajru insha allah taala loolu gannaaw boo xam ne toog na ba noppi mu wax ñaan boobu moom itam lu wér la lu jëlu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam donc léegi li nga xam ne ci waxtaan bi soo waxee jaaraale moo di li ñu tudde salaatu tarawih muy julli yi ñu ci fi ñu ko wax naafi la kooku julli julli ci at ñëpp la am solo ci la baax waaye nag ci ramadan dañ koo gën a fonkati ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man qaama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi koo xam ne taxaw nga ramadan di ko naafi la boole ko gëm yàlla boole ko sàkku tuyaaba nee nañu jéggal la sa bakkaar li nga xam ne moo weer kon su naan lañ ci jullit bi mu julli salaatu tarawih moo xam da koo def moom dama ci këram wala dafa dikk ànd ak mbooloo mi def ko ci jàkka yi ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jëkk a sunnaal ci jàkka yi jullee ko mbooloo ci waxtu tarawih gannaaw bi rek la ko bàyyi gannaaw ñetti fan yum ko def wala ñeenti fan ngir ragal ñu faraxaar ko ci xeet yi comme ni nekk ci xadiisu Aïsa radiallahu anha saxiixa yi limu ay rakkaam nag li gën a wér moo di fukki rakkaa ak benn la Aïsa radiallahu taala anha bañ ko laajee naka la yonente bi daan jullee ci ramadan daf ne mus ta dol mus ta yokk ci ramadan wala dudul ramadan mus ta julli ci ak julli lu ëpp fukki rakkaa ak benn kon yeneen riwaayaat yi nga xam ne fukki rakkaa ak ñett da cee am ne yonente bi daan ko naafila léeg-léeg ci lu dul jamono weeru koor moo di ñaari rakkaa yi nga xam ne ci gàtt ba àggal moom lay jullee ci guddi gi ba àggal door a julli fukki rakkaa yi ak benn xanaa ko déglu ko defee loolu mu nekk fukk ak ñett loolu tax na moom itam. ci mu waxoo Malick jëlee nañ ci Saïd ibn Yazid mu ne Omar ibn Khattab dafa digaloon Ubay ibn Kaab Ubay ibn Kaab ak Tamim ad-Daari ñu naa fi la ca jàkka ja ñu julli nag fukki rakka ak benn noonu la leen ko digale woon loolu lañ ci waata. fukki fan yi mujj ci weeru koor lu am am solo la Abdullah ibn Abbas nee na yonent bi nee na ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر رواه البخاري amul yenn fan amul yenn fan ci at mi yoo xam ne nekkul borom fonke jëf ju baax ci fukki fan yu ci koor fonke na ko ni ci jeneen yeneen fan la ñu dul moom mooy fan yi gën a yàlla ñu def ci jëf ju baax kon yooyu aw yiw la woo xam ne xeetu lislaam a ko jagoo ci anam boo xam ne ëpp naa fajani kon moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan farlu ci fukki fan yooyu loo xam ne du ko farlu ci mboolem at mi ñu ne ni ci Aysa radiallahu anha mu ne su fukki fan yooyu mosaan ñëw yonente bi day dundal guddi gi lépp day yeete sax day yeewaa këram day takku day takku takku boobu nag am ñu ko firee ne liñ tudd mooy takku ngir jaamu yàlla ci fulla ak fayda boole ko ak farlu ca ñu ci des takku gi liñ tudd mooy mooy jaw jaru jigéen ñi bañ a saytu ak jigéen ñi loolu itam danañ ko tudde takku waaye loolu amul genn jiyoo bu dox seen diggante ndax loolu su ko defoon it lim jublu mooy farlu rek ci biir jaamu yàlla kon daal dana farlu ci biir jaamu yàlla ci fukki fan yooyu loo xam ne du ko def ci yeneen fan yu mu mën a doon bokk na ci ak farloo moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fukki fan yooyu moo di def daan njàpp caaf ci fukki fan yooyu di jiima daje itam ak guddi laylatul qadar gis bu ne rek nga jàpp ne tey la laylatul qadar nan la jàppoon loolu léegi du xalaat nag moom ci boppam dafa am ay ngëneel yu bare bare bare bare sun borom tabaraka wa taala ci leeratul xadar la wàccee alquran te alquran moom moo dund dundee bi moo leen wan yoonu sun borom tabaraka wa taala wan leen gënu caxe àdduna ak àllaaxira leeratul xadar moom moo gën juróomi weer genn guddi googu leeratul xadar moomu ci la malaayika yi di wàcc te ñoom duñu wàcc lu dul ci aw yiw ak barke ak yermaane leeratul xadar moomu ak mucc kese la comme ni ko sun borom waxee ngir bari ñi nga xam ne dañuy mucc ci guddi googu ci mbugal ak ci lor yoo xam ne ñu ngi leen di dal ci seen diine ak seen ëllëg bokk na ci ngëneelam suñu borom tabaraka wa taala wàcce na aw saar wu ma sëkk ci laylatul qadar képp ñetti weeru juróom ñu di ko jàng li feeg ab julli tamit sooto yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ngëneel yi ba tey mu ne man qaama laylatul qadri imaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi koo xam ne taxaw na guddi laylatul qadar di ko julli di ko naat la nee na suñu borom tabaraka wa taala jéggal na la sa bakkaar yow weesu woon laylatul qadar nag mi ngi ci fukki fan yu mujj yoon ci ramadan su weeru koor ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ni ngeen koy tàkk ci fukki fan yu mujj ci weeru koor ak xar raw laylatul qadri fi al-ashr al-awaaxir min ramadan te it ma nga ca biti pétrolier ma nga ca biti pétrolier ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom-ñaar ñaar fukk ak juróom-ñeent maanaam ci digg ci guddi yi tool yi la nekk ndax ndax xam nga laylatul qadr fi witri min al ashr al awaaxir min ramadan loolu la ko yàlla def laa wax ci xadis buxaari mu ngeen koy tàq ci guddi yu toll yi suñu borom tabaraka wa taala rek daf ko wóor lépp dafa lëm laylatul qadar kenn xamul fan bis la ngir jaam ñi di ko dàq kenn ku nekk bés bu ne nga jàpp ne tey la ngir nga mën a def aw yiw wu bari loolu ci yërmaande yi suñu borom tabaraka wa taala la ngir mu bëgg laa nax naxal ngay jiima góorgóorlu bu baax bis bu ne nga jëf ay jaamu yàlla ngir loolu baax ci yow ëllëg loolu yërmaande yi suñu borom tabaraka wa taala te it war na ci ñaan ñaan yu bari ci guddi yooyu rawatina ñaan gi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalam Aïcha ne ko ba mu ne ko su ma xamoon ne tey la laylatul qadar su ma ko xamoon gan ñaan nga may digal mu ne ko waxal allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yow saa borom bi ab jéggalekat nga ku bëgg njéggal nga yëpp nag kon njéggal ma mu ne ko ñaan googu kon moom ngay wax zakatul fitr kooku mooy nguurum koor nguurum koor farata la boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko farataal xam ngeen ne lu yonente bi farataal mooy lu suñ borom farataal Abdullah ibn Omar moom moo sol xadis yi wane ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam farataal na muurum koor ci ramadan mu war a nekk li ñu tuddee saa saa nag àndaar la waaye mooy ñeent mudd mudd waxoon naa leen ne mooy ñaata gramme day xaaj kon ñeentam mooy saa saa boobu nag moo war bopp bu nekk mu ne benn andaa boo xam ne moo xam tàndarma la wala mu nekk pet war na nag ab gor war na ab caam war na góor war na jigéen war na gone war na mat ci jullit bi moom boobu nag dafa am ay xikam yu bari bari yoo xam ne moo tax suñu borom tabaraka wa taala waral ko waa yi rafetal la jëmale ci siin fexe ba ci gisoo it bi ñu tegal leen ñuy xëy di yalwaan fexe ba jox leen loo xam ne dana leen doy wala suñu xëy di yalwaan ngir ñu mën a dégg ci di toxit bi comme ni ko seen moroom yi yàlla ñu waamal ñu ñuy dégg ñu mën a dégg noonu ñoom ak tàggat la itam ñeen jullit yi tàggat leen ci pour ñu melo ko melokaanu tàgg day laabal aji woor bi itam ci li nga xam ne amaana mu am ci kooram ci électrique wax dëgg doomu aadama moo mel noonu moo tax xadis ibn abbas yonente bi ne tubratul li saahimi maanaam dafay laabal aji woor ji ci ay neen ak ci ay caaxaan waaye it toxmatun lil masakin maanaam luy jox xéewal la itam nag ñi nga xam ne dañoo nekk ay masakin xadis boobu nag yàlla ci borom xam-xam yi sukkandiku nañ ba wane ne zakatul fitr moomu miskin rek lañ ko tax a jox waaye dañuñ ko jox ñeneen ñu ci def ci asnaabu zakat bokk na ci ñu digal lool ibnu taymiya ak ibnu qayyim ak cheikh nasr bokk na ci ay ñu waral ñu farataal ko ba tey mooy feeñal mbégte ci xéewal gi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala xéewale na la ko yow jullit bi ci woor weer koor ñëw yàlla digal la ko nga nangul ko woor ko ba mu jeex ci wér gi yaram boole ko nga fay naafila ak sa jaamu yàlla ba mu jeex nga feeñal sa mbégte ci xéewal boobu loolu bokk na ci ñu waral ñu farataal ñu farataal weer woor la ci waral mooy dund doomu aadama lu mën a doon la ca wax comme li ñu ko wax ba tey lim ba tolluwaay ba mooy taax ba tey taaxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taaxu yonente bi rek dañoo wax ne mooy quatre cent quatre vingt ci li ñu tudde misqaal benn misqaal bu nekk war a nekk ñeenti gram ak quart loolu moo tax loolu lépp boo ko boolee kon kilo lay nekk ak quarante grammes boo ko delloo ci par ay mujj kilo la yonente kilo ak quarante grammes kon kooku moo war ñaari kilo ak quarante grammes moo war benn bopp bu nekk ndax loolu mooy taax war na ko génneel boppam war ko génneel itam koo xam ne moom moo war lu dundam su fekkee ne mënu ko moom mi war lu dundam nag su ko mënee li gën mooy mu génneel ko boppam ndaxte bi xibaar bi ñëwee ñu koy digle moom moom lañ ko digal waaye nit ko mënul di ko gënal moo ko yóbbaale waxtu bi nga xam ne ci lay war mooy su fekkee ne jant bi sona bu ñu nee suba la korite jant bi sona tey foofu la tàmbalee kon jamono yi jant bi sox képp koo xam fekk na mu war la kooku war na su faatu woon fekk jant bi soowu ko kooku waru su fekkee jóg na gannaaw bu jant bi sox kooku waru waaye nag sopp nañuy génneel ko ko comme que jóg na parce que ab ñam ab ëmb ab ëmb sopp nañ ci ko ko génneel wax nañu Ousmane Ibn Affan daana génneel ab ëmb ab ëmb zakaatu ci nga xam nga ni kon kolofa waa bokk yi nga xam ne seen sunna def ci topp waxtu boobu yàlla mooy balaa nit ñi génn dem julli waaye suñu xasee julli ba àggal foofu sax rek lay tudd waaye lay tudd raja du sëbal kon bala ñoo julli daal diggante fa jant bay soo ak ba ñuy dem julli ji foofu ki nga war a joxe wóorum koor su tollee noonu nag man foofu joxe too wóorum koor waaye su fekkee ngant nag taxul su fekkee ngant taxul joxe wóorum koor waaye su fekkee ngant a tax kon boobu ba tey mën nga ko jox nit ki mën naa tukki nekk ci ab àll boo xam ne moom dong moo fa nekk waxtu bi doon korite bi jot dañ daan àgg ci nit ñi fekk nañu julli ba àggal su boobaa mën naa joxe wóorum koor lu aju ci ayit nag muy gis korite ñuy joxe ci xamle ne julli ñi ñaari feet lañ am yoo xam ne annuel la ñu am ñu nekk am nañ ci ñaari feet yoo xam ne lislaam moo leen ko jox ndax Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu mu ngi nekk li ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu dikkee Madina dafa fekkoon nit ñi di feet ñaari feet yoo xam ne dañ ko yoroon mu yahud yaa ngi leen dëkkal mu ne leen ngeen di ñaari fan yii da ngeen ci foo at bu nekk waaye nag suñu borom waxteen na leen ñaari fan yu ko gën muy yowmal fitri wa yowmal adha kon ñooñu ñooy ñaari it ñi nga xam ne jullit yi yàlla suñu borom tabaraka wa taala moom moo leen ko moo leen ko jox mu génne it waaye nag buñ seetloo jullit yi li ñu dund nañ ci ci wàllu sentiment ak ci wàllu xër ak jàpp ne lu baax moom mën nga xalaat sa xol tër tax na seet yi jullit yi am ci jamono tey kenn xamul nu mu toll parce que yëpp ñoo ko tollal seen bopp lenn ci seeni waykat sax waykat yi nga xam ne dañuy faral di dimbali bi daa jiw naa dugal ci biir ay wayam keneen seet yoo xam ne bokk la ñaari seet yooyu mu wane ne xiibi jullit yi ñett la mu ne al muslimuuna salaasatun ayaaduhum al fitr wal adha wa iidu al mawlidi fa ida intahat ayaaduhum fa sururuhum la yantahi abadan bi xubbi muhammad mu ne jullit yi seeni feet ñett la muy korite ak tabaski benn ak mawlid xanaa ñetti feet yooyu lañ am mu ne seeni feet nag bu jeexee bu tee moom dañuy continuer di bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku dafa seen wëlu am ku ko tontu koo xam ci woykat yi sunna la bokk moom itam mu ne aydaani ayna ulimnuha la thalitun lahuma liman yabghi salamata fi zabi alfitru wal adha wa kullu ziyadatin fiha xurujun an sabili muhammadi nee na yaari am benn fan ci koy bi nee na kooku am nga yoonu ku woor adduna lépp ku woor jamono jëpp xam na su ko mënee gaawee moo gën maanaam suñ suñ suñ korité rek bu ca suba sax suñ waree rek bu ca suba sax bu xëyee tàmbali woor juróom benn fanam loolu mooy li ci gën waaye nag su ko defee wut noonu su ko waree ci biir weeru bari bi rek baax na lenn ci ay rëcc rëcc yoo xam ne dana di dal ñi woor ñu jaxee ñu ngi jëndoo bokk na ci mooy lu bari ci nit ñi ci njuumte yooyu su weeru koor di gé dañuy jublu jaamu yàlla di góorgóorlu su weeru koor jàllee ñu bàyyiwaat jaamu yàlla mel ne koor mooy weeru jaamu waaye bu woo koor jàllee jaamu yàlla du tam tam li koy xam ne mooy ci waxtu julli naafile yi da ngay fekk jàkkee yi di fees jàll nit ñi di ko daje waxtu bi jot jàllee waxtu bi farata yi doo gis nit ñi di ko daje noonu te muy fàtte ni julli farata boobu solo julli julli naafi la ndax julli naafi la bu la neexee mën nga ko bañ a def wala nga def ko sax ci la kër te du yàq sa diine waaye julli farata boo ko defatul kooku day yàq sa diine bokk na ci jëm yooyu ñaareel ba mooy am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy woor bañ a lekk bañ a naan bañ a def yi teey waaye fekk na wóoruñu fekk yu nëpp ya muy lu mel ne jëw ak rambaaj xel saaga ab jàmbur xaste tooñ lekk alal jàmbur yooyu yëpp ay njaaxum la yoo xam ne jullit bi su wooree bañ a lekk bañ a naan it yooyu wax na ko wasani te kat yooyu buñ fàtte ne lenn ci borom xam-xam yi nee nañ da yàq koor bokk nañ doo ko ibna xasm nee na ñuy lekk naan di yàqi koor noonu la mel di yàqi koor bokk na ci yooyu ba tey ñetteel ba moo di ni am na ñoo xam ne buñ koor gi ñëwee suñ wooree loolu day daal di toppi seen jikko ñu naqari tere di sonal seen njaboot seen waa kër mel ne dafa am balaa bu wàcc ci sa kaw boo xam ne dara mënu ko teg boole ko aw naqar woo xam ne da ngay yëg ne dañ laa yan yan boo xam ne lu diis a diis a diis la déedéet jullit yi wóor ñëw mel noonu koor jëmmi boppam lam jublu ci yar nit bi wute na ak loolu ndax bu demee bañ naan ko bu la nit saagaa sax wala mu dóor la ne ko man damaa woor kon kooku sëy ji ko war naa sorente di jëkk a mere nit ñi leen dikk xam leen dikk gëdd kooku yëg yi day daal di doy waar kon am na ci ñeenteel bi ñoo xam ne su weeru koor dikkee moom weeru tayel lay daal di soppi ñoom dootuñu liggéey dootuñu feeñal ak njàmbaar dootuñu góorgóorlu te buñ fàtte ne jullit yi jëkk ya ñoom ci weeru koor ci la seenu njàmbaar daan gën a feeñ xeex yi gën a siiw ci lislaam yu mel ne ay badara ak yu dul moom yooyu yëpp buñ fàtte ne ci weeru koor ci la amoon kon ñooña weeru koor weeru liggéey weeru yëngatu moom la dooroon ci ñoom waaye nekkuloon weeru weeru tayeel am na kenn ci borom xam-xam yi mu bind ne di melal leen ci jullit yi ne leen innakum تأكلون الأرطال وتشربون الأطفال وتنامون الليل والأطفال وتزعمون أنكم أطفال yéen a ngi lekk ba seen biir ba di naan ba seen biir jëm kaw di nelaw a nelaw lu guddi gi yàgg-yàgg ba noppi nag suñu waxee ngeen ne ay jàmbaar la nga ne yooyu mënta ànd kon yooyu mënta ànd juróom-benneel ba am na ci nit ñi ñoo xam ne dañoo jàpp ne ci biir naafile yi wàcce alxuraan bi dafa doon lu mënta ñàkk nga xam ne loolu mooy jubluwaayam di jàng alxuraan aw jàngeen woo xam ne yow mi taxaw di ko déglu li muy wax doo ci xam dara ngir gaawaay bu ëpp koo xam ne ma nga ko koy jàng àndu tëggub tettantal aay ak maanaaya àndu tëggub ragal yàlla àndu tëgg tettantal li nga xam ne moom mooy jëmmi alxuraan ci boppam ak ku koy jàng nan la ko war a jàng lañ ci teem daal mooy àgg ca mu jub ma topp bañ ne kawe ba àgg te alquran loolu taxu koo jóg yàlla dafa ne kitaabun anzalnaahu ilayka liyadabbaru ayaati ab téere yi boo xam ne dafa ko wàcc ngir ñu settantal ay aaya wax ne warattilil qurana tartila na ngay jàng alquran am jàng moo xam ne mu tey bokk na ci lenn ci jumte yoo xam ne lenn ci ñi yëngu ci wàllu xam-xam si ñu waxtaan ci ngëneeli koor dañuy def seen waxtaan yëpp yëpp yëpp mu ay ci ngëneeli koor yi muy jëriñ ci wàllu adduna lu mel ne njëriñu santé yeegi mel noonu nga xam ne waxtaan lépp ci loolu lay jëm loolu la nit da ko waxaale waaye bu mu doon waxtaan bi lépp di fàttee waxtaane yeneen yi muy jëriñ ci wàllu ragal yàlla yeneen yi muy jëriñ ci wàllu jaar gis ci digganteem ak boromam di ko ko indil ci digganteem ak moroomam yooyu yëpp ñu di ko fàtte fàtte ci yee nit ñi lan la ko wax daal dafa doon loo xam ne wàllu faj ay wér-gi-yaram ak yu mel noonu ba mu ko tax a jóg ba fekk jullit bi lam itte woo dëgg dëgg dëgg du loolu sax waaye topp yàlla ko tax a jóg donc ni mu ci muy topp ni muy topp yàlla sax xam nga ne yàllaa ko ko digal waaye lii day yàq wér gu yaram sax kon itam du tee day topp yàlla jihaad fi tax bi la jëliñ bi xam nga ne da ciy dugg amaana mën nañ ko cee rey waaye digal lay topp moo tax day dugg ci biir ñeewu xeex fi sabilillah ñu rey ko ba kanam rot ci yoonu yàlla mu dem tàbbi àjjana loolu moo ko gën a kon wér gu yaram gi taxul jullit yi jóg dëgg la xéewal la mu amale ci biir loolu juróom-ñetteelu bokk na ci njóobte yi mooy lenn ci ñuy waxtaan ci weeru koor soo leen dégloo da ngay déglu bare bare bare bare ci ay xadiis yoo xam ne yu wérut la ñu di ko jëfandikoo ci koor te du ma leen fàtte parce que li ne li wér ci ay xadiis ci koor ak ci ngëneelam ak ci njariñam ak ci meññetam loolu aajowul kon tax na aajowul ay xadiis yoo xam ne dafa wérut ñu jëli ci yonente bi sallallahu danaa leen jox ay misaal am na benn xadiis bu ñuy faral di wax boo xam ne day wax ne man aftara yawman min ramadan fa maata qabla an yaqdiyahu fa alayhi bi kulli yawmin muddun li miskin koo xam ne dafa toog gis ci weeru koor nee na faatu te fayagu ko nee na bis bu nekk war naa jox ab mudd miskin loolu wéru bokk na ci man aftara yawman fi jari ramadan fil xabar fal yawdi badana koo xam ne dafa dox ab bis ci weeru koor nee na ma joxe aw nag wala gëneem wala ab gaa fa in lam yajid fal yutim talatina saa'an min tamrin bu fekkee amu ko na joxe fanweeri saa ci tàllam bokk na ci xadis yooyu naw mu fa ini ibada nelawu ka woor ñu ne ak jaamu yàlla loolu xadis bokk dëgg wax ci laay bokk na ci suumu tasik foof woor leen ban da ngeen wér loolu xadis bu wér bokk na ci shahru ramadan muallaqun bayna samaai wal ard wala yurfau ila allahi illa bi zakati al fitr ñu ne weeru koor dañ koy aj diggante asamaan ak suuf du àgg ci yàlla mukk lu dul su fekkee ne dañoo joxe zakat al fitr loolu du xadis bu wér ndax su fekkee ne loolu wér na kon bu war te jotoo zakat al fitr kon du ko baaxul loolu mukk ba baaxit moom maanaam li wérul maanaam li wérul xadis bi wérul bokk na ci naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmi arafa bi arafa ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere te nekk arafa muy woor muy woor ci bisu arafa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soññee na woor ci bisu arafa waaye nag moom ba mu nekkee arafa wóorul woon ndax li wér mooy te bis booba dafa nekk ci ñaam ak ay activité jullit bi bañ a woor ci bis boobu moo gën a baax ci moom moo moo koy gën a amal ak cawarte ci lay tax waaye nag bu nekkee ci boppam ak cawarte kenn terewu ko mu woor bis boobu bokk na ci yooyu xadis bu naan chahru ramadan awaluhu rahma wa awsatuhu maxfira wa axiruhu xitqun min annaar nga weeru koor njalbeen ko yërmande la boo nekkee ci digg ba loolu njëgal gaar boo nekkee ci mujj waree nga ci sawara xadis boobu ni faral di jëfandikoo loolu la tudd xadis bu wér donte maanaam sax mën naa wér nag waaye séparé googu amul ñu naan li njalbeen bi mooy lii digg bi mooy lii mujj bi mooy lii waaye weeru koor léppam yërmande la léppam njëgal la léppam ak waree nga ci sawara kon daal xadis yooyu lu mat a bàyyi xel la ci mujub waxtaan yi maa ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dimbali nu dëgëral ñu dimbali nu ci sellal àggale nu ci ay weeri koor yu bare bare bare bëri ñu war ko ci jàmm ci na ko suñu borom tabaraka wa taala bëggee te nangul nu di sant itam mbokk yi nga xam ne ñoo jàpp ndalal waxtaan yi muy ay ndaw yoo xam ne léegi ni mënoon na leen a fekk ñu nekk ci ay po wala ñu nekk ci ay caaxaan wala ñu nekk ci yoo xam ne amalut jullit bi njariñ ci wàllu diineen waaye ñu fexe ba dajale fi ñii ñu fi dajale yëpp itam doon doon koy ndaw alhamdulilah tamuy waxtu wi nga xam ne ci la leen lislaam aajowoo ndax te buñ defe ne buñ defe ne lislaam nit ki fa mu demee ba màggat ba amatul njariñ ba amatul njariñ foofa la ko lislaam door a soxlaa bu retraité rek door a ñëw ci jàpp gi déedéet su tolloo ci digg mbir mi di ub làmb di jël ay kub toll ci digg doole bi foofu la ko lislaam soxlaa kon ndaw ñu takku dañu ci béréb bu mel nii bokk waxtaanee benn tomb ci seen diine kon loolu li ñaan ko moom tabaraka wa taala sax ci la bokk di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu boole ñu dimbali bokk ñu boole ñu jubal boole ñu wan ñu dëgg te lépp loo xam ne rob na ci ay njumte suñu borom tabaraka wa taala jéggal ñu ko ñu xam ne lu ci rob ci xeeti njumte wala wax yu lëndam wala yu mel noonu ci noonu la dem si waaye lislaam moom lépp a jub lépp a leer lépp a tegu itam ci siraatul mustaqim di jéggal itam kàddu yi bay jiwaar ndax xeeti fan yi ngi di fan yooyu daf ñoo xaw a ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi